di leen bëgg yéen ñëpp waaw di am di am jàmm bu baax a baax a baax waaw gars yi léegi dañuy ñëw ci euh, ma xool fan la di njëkkee fan la di njëkkee fan la di njëkkee <laughs> waaw gaa yi ba tey di nuyu waa Torino xam nga ñooñu faaw mu bëgg leen njaga yow laa jël nuyoo bi teg ko sa loxo njaga borom tërinoo King Baba ah ñoom Bada saw Lil Boy ah fàttewu ma tafaa keme borom poulailler bi yéena moom Torino de daama yéenay borom Torino Bada Naar yëngal leen rek ba kenn laa leen Torino moom fa la affaire yi di xoyom xoyomee bala maa ñëw ci kii xam naa kii bu génnee Torino laa ko indi directement ndax daf ma ta léegi jaylaam yi bu ko yàlla defee bu mu génn Torino la jëm directement waaw gars yi may ziar ñëpp di leen bëggee bu baax gars yi lii dañ koy waxtaanee xam nga dañuy waxtaanee kaa bi parce que kii sama xarit la sama doomu ndey la te boo amee sa doomu ndey am sa xarit dafa am looy xool ci moom di ko suturaal di ko conseil comprendre nga yaa ngi dégg ñëpp a ngi commenter ne aada mu amul xarit aada si am naa xarit sama mag bu ma bokkal ndey ak baay ndey ak bàyyi ñoo ko bokk yaa ngi dégg sama benn mag boo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi dama ne ko anta mu ne ma ah ma ne ko bis boo wanee sa nangam wala nga séq a góor loo xam ne waroo séq moom xam nga ma mu ne ma xam kaa xalaatul sax man xamee woo ma yooyu yooyu du ko def ndey ak bàyyi ñoo ko bokk affaire bi du weeraate de affaire de joxel la soow la comprendre nga nee naa leen man am naa mag bu ma bokkal ndey bàyyi ni kii la toll am na jëkkër léegi moom rek daf ma ragal waxuma la ak yéen moom kese moom rek daf ma ragal buy wax ak man sax moom bu dee téléphone ak man sax du nangoo audio day bind rek wala mu ne xaaral ma woo la kon waxuma la ak yéen comprendre ngeen ñoo bokk ndey ak baay man moom ok sama mag la ñoo bokk ndey ak baay anta tudd kon affaire yi amul ay xarit amul ay mag amul ay rakk waxtaan la rek teg affaire yi sa temps affaire cadre de waxtaan la rek xam nga discuter xam nga ñu suturaalante nag. ndax ki am na lu may seet parce que budul dara sama way la xam nga budul dara sama xarit la sama doomu nday la xam nga nit ku bax la nit ku bax la mais dañ koy waxtaane waaw dañ koy waxtaane rek comprendre nga dañ koy waxtaane ok gars euh, xam nga dañuy dañuy commencé ci benn cadre yaa ngi dégg benn cadre la ñu commencé cadre bi ni njëkk a commencé mooy jaylaa mi asafurlaa jay naa jay naa ay mbokkam dañ ko war a jóg ñu xool ko ndax gel bi liggéeyuñ ko ndax gel bi nii yàquñu ko loolu lan war a seet ba pare parce que xale bu ndaw xale bu tuuti teel a bëgg kooyi gàddu kooy kaala woog moom musóoroo kooy kattante yu dul arrêté ak joxe data sa waay loolu dafa bon dafa ñaaw man sama xarit la Diop Iseg ci cadre Diop Iseg lay ñëwaat Diop Iseg dëgg la moo biiral booy bi ñëpp nangu nañ ne moo ko ëmbal loolu leer na mais ci biir ëmbal bi ci biir ëmbal bi di lan bëggoon a teg Diop Iseg moom ak magam ji jàpp di lan ko doon teg Diop Iseg ci boppam dañ ko doon dil mais dil bi dafa moy parce que affaire u sëriñ moo ci duggoon comprendre ngeen affaire u sëriñ moo duggoon ci dil bi ba ci affaire sëriñ duggee dil bi daal di mooy noonu la demee mais xaalis lañ ci doon wut Jayla ak rakkam bii di Ali Balde yàgg na noo def lu mel nii du tey de maanaam tey la noo feeñ yàgg na noo def ay ndaanaan di santaas ay artistes yu bëri ma naa leen a tuddal seen tur du ma ko def yàgg na noo essayé di def jëf ju mel noonu loolu mooy seen liggéey comprendre nga Jayla ba ko fi Diop Iseg kattee ëmbal ko ñu bari doon doon wax ne Diop Iseg Diop Iseg Diop Iseg mais instant yi may nga famille Diop Iseg lu nu wax instant yi nit ñi wax nan ne Diop essek moo am dëgg sa bopp dëgg la caabi oto bi yaa ko sàcc ah? téléphone bi yaa jël yaa ngi dégg ok moom Biril ñoom ñaar seen relation nii la nii la moom ak Biril yaa ngi dégg man dama daan woo guddi di ma woo bëccëg naan ma damay nekk ak biril dinaa la ko paas wala boog mu naan ma am na soo bu may produire mu ne ma soo bi biril dina la ko defaral yónnee ma ko biril defaral la ko yaa ngi dégg ma noppi rek kuul sama kuul moom mi ngi mel ne ku amul kër kër biril la daan nekk fa la daan yeddu fa la daan iñaat fa la daan daan fa daan sangoo fa la daan defee lépp daanaka ca kër ga la dëkkoon soow yu bari nag biril moo koy defar defar boobu ci defar sooy nag day defar di kat rek defar di kat defar di kat moom daal production à quatre heures lañ doon def jom ñaar jàpp booy bi di kat rek jàpp booy bi di kat rek biril kenn gënu koo doxaat ndayam dinaa ñëw ci yow damay njëkk ci jaylaa ba pare mais jaylaa amoo fulla amoo jom amoo fayda jigéen gu tol na yow xoolal ni nga mel ak ni nga rafetee yow heure bi waroon nanoo fekk ngay dawal gi war a nday Maserati yow Range Rover dalaa job xoolal sa rafetaay jay laa xoolal sa nga kat sa tuunu nday topp ñu lay kat yaa ngi dégg di la dugal fii ko kat jox sa moroom job isek essence bi jàpp na ne am na ndam comprendre nga nekk xale na ko ay mokkam xooli biril tamit xam nga man lan laa xamul bu fekkente ni mënu leen a jàppale nit ki te yàlla tax ngeen ne mënu ma koo jàppale mais doo jàpp nit ki di ko xale bu ndaw nga jël ko di ko katt nan da koy produire Diop ISEC noonu la demee woon dafa gis booy bi seen petit gaale mu am talent mu xëcc ko ne da koy jàppale fan la mujje katt booy bi ëmbal ko Diop ISEC foo mujje jàppale booy bi ci musique katt ko ëmbal ko booy bi tamit dafa bëgg ay tegtal biri la ngi nii gisoo li ko fi yóbbe ñoom ñaar ñoo doon nekk ku leen wax lii nii waxul dëgg ay dama dafa jël téléphone nit monte kook nangam ñoom ñaara daan nekk kii nga xamante nii mooy magam bu tudd Ali Baldi yaa ngi dégg moo doon poussé booy bi moo ubbi benn groupe WhatsApp xaaral ma affiché leen groupe WhatsApp bi ñëw Ali Balde affaire Diop Iseg ba mu kattee Jaynaa Jaynaa Jaynaa ba coow li bëri ba ni wax affaire Jaynaa ci la Ali Balde mii di frère ubbee benn groupe bu tudd tim mi ngi nii tim Dieyna family di fa vocal ay vocal ñu ne danoo war a jàppale Diey Dieyna mu dem ci carrière am te fàttali li mu passé woon dëgg la kii nga xamante si nii moom mooy Ali Balde carrière u Dieyna ñor na ko mais ci biir carrière bi day jël Dieyna di ko utiliser comme objet di ko jox gars yi ñu koy kat comprendre ngeen Ali Balde magam ji moom moo nekk complicité bi moom mooy jël jay naa di ko jox ay góor ñu koy kat di ci business kaawu Diop Iseg loxoom mi ngi ci biir moom Ali Balde kaaw bii nii loxoom mi ngi ci biir ak moom Ali te yàgg doon ko dañuy doog a feeñ yàgg na noo def lii de c'est pas la première fois yàgg na noo jël ay naanaan man mën naa tudd ñu bëri ñoo xam ne essayé nañ leen pour teg leen dil mën naa tudd ñu bëri ñoo xam ne essayé na leen pour def leen la même chose moom Ali Balde mag ji kenn gënu koo teppi data yaayam. ku dëgg ndayam la sa rakk nga koy jël def ko objet pour lan carrière carrière de musique lan mooy sarab ndayi carrière de musique boo mënta am ci musique bi nga kat sa nday defee leneen mais carrière de musique jaral na la nga yëkkati sa data rakk saam ndayam ci dëkk bi pour gars yi di ko kat pourquoi pas c'est honte aalimi ku teppi data yaayam la kii du frère du xarit ku ubbi data ndayam a ngi nii gel bi koy lëfam lii koy yi ci dugg rek moom moo ko fabriqué ba koy ba dem ku daqaar ndayam mooy Ali Balde pourquoi ngay sa jël sa rakk di ko utiliser pour gars yi di ko kat ndax carrière de musique saram day carrière de musique seen bati gàlle gel ya fa jóge yëpp cagalan muy kii muy ay sa kone muy ñeneen ñi ku ci siw yor sa ñaari micro ay dangaa baax sa gars yi di la déglu rek nga commencé partager sa data seen petit gàll ci boppam dinaa ci jël moom it loyer yoo xam ne dinaa woo Bouba Ndour waxal ko ko sama bopp mu jéem a katt ndayam arrêté yi ku jógee seen petit gàlle katt ndayam commencé li tànk di kattante xoolal ñu jóge seen petit gàlle yëpp koo ci waxal muy ciibati di wëndee di wëndeelu solal la baax booy nekk seen petit gàlle koo ci wax muy jiibetoo ko wëlbatikoog mañeeroog wengal ay silib cottu ndayi loolu dina wo buba dur wax ak mom ne ko sen petit galle bi na arrêté gel yepp gi katante ndax loolu ku ci way ñaari morso rek na ya mom rew mi commencé simi sa silib saram ndayi li way ni la affaire bi debé jey la ku manti kat rek jey la balde jey na balde ku ko mën na jël ay koy dugal ko ci dataam bi rek Ali Baldé ko waral muy mag ji ñoom ñaar doon teg seen i dil yaa ngi dégg yàgg nañ koo def nag tey dañuy doog ko feeñ ñoom ñaar ñëpp lan kat seen nay instant bii nii ndax woo naa Ali jotuma ko ñoom ñaar ñëpp lan jàpp gars yi ñoom ñaar ñëpp lan jàpp ñoom ñaar ñëpp jàpp nañ leen Ali woo naa ko waaye jotuma ko sa waay na ni delloo suñu xol ci yàlla lan mooy carrière de musique lan fi la ma fi wo téléphone jeyna ne ma dama bëgg théâtre dafa am lu ma bëgg ndax man nga ma bolé pot et Marichou yalla baax na ba guddi googu dama wo pot kessé dugaluma ko ci appel bi tegal ko ne ko ah jeyna dé de woo na ma nee dafa bëgg théâtre pot ne dina ko wo té leer na ma ne buma ko baasoon pot ñom ñaar len fa waxtaan doxaanante dafa ñom ñaar ba jëlé fa katanté man lér na ma ne man buma ko présenté won pot et Marichou dina fexé fexé ba ba pot jox ko koy te bu pot joxee koy am bi tukki ndax bis bu ko pot kattee bis bu ko pot kattoon fi mu toll nii kaa bi maa koy res ñu ne maa ko présenté jël na ay koy bu ko kattoon fu ma jëm carrière de musique moo leen jaral lu ne saam seen data bi mel na ay jaaykatu tamaate sarab ndayi loolu biril maa ngi ñëw ci yow xam nga ne moos duma la bàyyi ana biril biril benn affaire nag naa ko wax sénégalais yéen ñëpp ngeen xam ko gars benn affaire laa bëgg a wax sénégalais yi yéen ñëpp ngeen xam ko gis ngeen biril mi ku teppi data yaayam la ku katt ndayam a ngi nii gis ngeen biril mi c'est pas la première fois muy def lii de am na benn gel dama dugal image bi rek mu wooma nii la ko doon def benn gel nii la ko doon def nii nii benn gel nii nan ko dama lay jàppale de di ko doxaan ba pare di ko def day moom da ngeen naan neex sedd lay la dafa kuul day rab day def lii non non kattar bu katt ndayam a ngi nii kii boo xoolee veeram yi rek ak gémmiñam gu doxaat ndayam gi nga xam ne kii kattan dëgg la booy lay jël yàgg na ko yàgg na koo def de biril caga bu kattan ndayam la kii su fekkee xamu leen ko yàgg na koo def de yàgg naa jël ay booy di leen utiliser pour katt leen biril mi ku biiral la fal ndayam a ngi nii li ma leen di wax nii fu leer laa ko teg ba ma nee taj image su biril ñi ma contacté kenn xamul lu toll ne ma jëm na leen a def la même chose kat rek ay métier production de kat lay jël booy yi lay aj seen maayi ni soo yi nangam nangam ah bit bi bax na na ndeke bitu kat la ma ngay kat rek day kat rek do mu la de yag na ko def de yag na ko def ku deug ndayam ma ngi ni man li la dafa leer du tay rek la ko commencé def do mu xaj deug ngi ni do mu xaj deug ngi ni la wax biril mii katteur deug international ku mo den jekal dara dina la kat quatre heures dëgg a ngi yow man jeyna boko ko tegalatah? nga ko te yalla tax ah jeyna dama la gis dama la bëgg a parce que sa ar neex na ma wala nangam nangam ken bañu go mais jàppale bo xam chaque jour faaw ay koy dugg ci faaw nga kat boy bi bëgg bëgg do koy sa way cadre de musique di ngeen koy yenoo mo am doole di wër di kat xalé yi rek nan dag leen di jàppale Job isek ni bam ko fi katé ëmbal ko eh job isek lan la ko katé gars yi jóob Iseg lu mu kattee woon Balde eh Diop Iseg lan la ko kate woon xale nga am nga talent seen petit gàlla yaa fay toj dama lay yóbbu yaa ngi dégg jàppale la sa carrière yegg wutal ko néeg wutal ko appartement di kat di kat di kat di kat ba mu ëmb léegi dil ban man dil ban bëggoon ñoom mooy kalaate Diop Iseg ak la nu bëggoon bu amul dañuy kalaate Diop Iseg looloo waral Diop ISEC ñu xam ne moo ko ëmbal fan lan mujje production di kat rek léegi Diop ISEC bàyyi na kaawam jàll na biril moo jël ne moo jël yoon bi cadre musique la am jay naa am na talent naa ko jàppale moom it di kat di kat nag ba ba ban filmer ko téye vidéo am jay naa moo jël vidéo biril téye ko di ko santaas nag di ko laaj xaalis ak téléphone téléphone ak xaalis la ko doon laaj sinon day publier photo yi wala mu jël photo yi am ñu ko envoyé comme ñu mel na man wala dara lu ko fi jar lan moo ko fi jar gaay yi waaw gaay lu ko fi jar laay laaj yéen laay laaj lan moo ko fi jar lan cadre musique jar na loolu jar na kattante yu bëri yi ak simmi data ñëpp ci lii la leen di kat ay sa kone tamit mi ngi commencé di cakki-cakkee ka maññ maññee bak am na ko ma ci xullooloon seen petit gàlle ami la tudd jëlaat nan ko moom laa daan xulool moo nekk Italie moom laa daan wax ne ko fii la la kattee ay koy euh, buuba dur katt la ba nga sonn mu jël la accompagner la ay koy indi la fii waxoon naa ko ko tey ñàkkati na jom delluwaat seen petit gàlle seen petit gàlle xale bu yàqu senegal moo la yàq seen petit gàlle la farke ku fi ñam sisse commencé simmi sa silib xalé yépp ngi katante légui ndax seen petit galé ko wax muy xural baat wa fariyolay juwaan ñu né sa way dafa mëna way né ko ciopet duggal ko seen petit galé mu yëggal ñaari yoon bëss bi japp ko musim bi salib kumaatee katante toj aduna bi saram nday seen petit galé ko ci gis ma ngay fariyolay cottu dayam way nono way gay c'est hunde lima len di wax buma len ko wax dal moy Bouba Ndour suba dinaa ko woo téléphone te man duma ma leen ma sox def naa ko dina dinaa liggéenti numéro Bouba Ndour woo ko parce que seen ba di gaala bii c'est honte c'est honte koo ci gis muy xuural baat bu jógee di si misilib di kattante biri lii lépp yaa ko yóbbee sa bopp lu la dal rek sa bëgg lëf moo ko yóbbee ak bëgg data bëgg kattanteeg yàq ay xale moo la waral lii waroo woon a plainte de yéen ñaar c'est la même chose sa vidéo boobu mu téye yéen ñaar c'est la même chose ñuy expliquer si histoire bi du ñu expliquer nu mu deme dañuy rafetal naan ay demeewul noonu ak benn xale bu góor dafa ay pis man ci digg bi laay jaar ñoom ñaara a doon kattante vidéo kattante bi jay naa doon kattante ak biril magam ji moo ko doon filmer Ali Balde vidéo boobu lan jël ci pis boobu yaa ngi dégg pièce boobu lañ jël monté ci vidéo bi daan biril mii booba moyul téléphone wala nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ma katt ndeyi vidéo yi nii la affaire bi demee mais ay ndoy baana ak ay rafetal ay non nit ki nii dafa jaar nii nangam ah yàgg na faa fanaan da ngeen di jaar ci digg bi gis ga information day leer ci digg bi ngay jaar jay naa kattantewul ak kenn ku dul biril mii ñoom ñaar ñoo doon kattante këram la daan yendu këram la daan fanaan fa la daan aje fa la daan defal lépp même fa la dëkkoon daanaka fa la dëkkoon biril mi ak jay naa kattante nañ si te ba tey hôtel bi nekk damel laaj ko biril xam na ko ñaata yoon lan fa kattante ñaata yoon la ko yóbbu damel da ko ca lëf li ñaata yoon la ko kat si te damel katt na ko kattaat ko kattati ko sa dama bëgg information muy leer man awma lu may rafetal defu ko kenn ku dul kii ñoom ñaar la fii amul rafetal de ay dafa dugg fii il est day katt ndayam duul man dafa am lu may seet sax ne kon information yi dina gën a leer mais xam nga jigéen la te jigéen dañ koy suturaal te sama xarit la sama waay la bu dul dara yàgg na ma woo bu dul dara yàgg na ma xam nga wayal na ma way bu neex yaa ngi dégg ma bàyyi loolu ndax gars yi naan aadama amul xarit am naa xarit de gars yi am naa xarit am naa mbokk déggoo ma de man man mi ngeen di waxal am naa xarit am naa mbokk am naa xarit am naa mbokk mais dafa fekk kaa jote jotee ak lu ñor Sénégalais yi damay génn ma wax ko man du ma rafetal yaa ngi dégg du ma rafetal jay naa mi yàgg naa def lu mel noonu tey la feeñ yàgg naa def lu mel nii déggoo ma de jay naa c'est pas la première fois yàgg naa jël ay ndaanaan di leen def lu mel nii di leen nax di leen santas carrière u musique bu dee boo demee ba mënoo yor sa carrière u musique nga kat sa ndey bàyyi ci musique bi dem wuti leneen mais nooy carrière oo sa data ndax musique fan nga gis loolu doomu xa dëgg la fu ma waxee ci ñaar ñooñu dinaa ñëw ci frère bi